الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت والصلاة والسلام على من شرفه الله بالرسالة التي سمت وعلى اله واصحابه الذين هدى الله قلوبهم للايمان فاهتدت ورضي الله عن الاولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله اسوه حسنه إخوة الإيمان والعقيدة في كل بقعة من بقاع الأرض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكو جلت يني دجلو كي راجو سفينة اف 98 point 2 ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa ci mbaaxam ñun ñëpp mu boole ñu baal di ko ñaan li ñu koy jaamu mu nangul ñu ko ca na mu toll te bañ koo nangoo ci ni ñi toll di ko ñaan it bu ko nangoo mu làqal ñu ko fa yàq àggul ci barke yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen mbokkum taalibe alxaaji Abdoul Aziz Fall moo dellusi ci daara ji ci seen waxtaanu tasawuf mu di soufisme ki nekk ci technique bi sunu mbokkum bopp Samba si koy ñaanal yàlla tawfiq ci liggéeyam mook mboolem technicien yi ko seq mu ngi beral nuyoo ak ziyaara suñu directrice su bopp di soxna ñu ma ba ko ñaanal yàlla tawfiq ak taysiir ci liggéey bi ñu ko dénk mook mbooleem ñi koy jàppale di nuyu di ziyaara di ñaanal sunu wëllëre bopp di xarit di soppe di boroom kër gi di alxaaji Cerno Xamidu Yoro Band ñu koy ñaanal yàlla tawfiq ak taysiir ak najaax comme ni ñu ko waxe woon ci leçon bi weesu ni temps dafa cher te alxayaatu hibatun min allah dundu kado la bu nu yàlla subhaanahu jox kado bu tol ni dund nag su la ko yàlla subhaanahu wa taala joxe war nga góorgóorlu ba balay jeex nga defal ko ci loo xam ni bu ëllëgee boo dajeek moom doo rus fa ma wax ni li yàlla subhaanahu wa taala wax ci alquran nettali ko ëllëg yowmal qiyaamati ci lay ame amagul waaye nettali nañu ko ni dana am ndax moo bind lépp ci loxoom lay jaar xam na fa lépp di teere دفو القرآن الكريم نقلق يوم القيامة خيط ونه دينا لتاج تيوال يننت بمي يني تيو دينا لين بوزي كشن نجن وخ waaye yonent bi ma yónni woon ci yéen it dinaa ko laaj mu wax bisu layoo la layoo yàlla ne werante du fa bare ndax may àtte te bu coow li naree bare nee na ma teg image yëpp ku ne gis sa bopp ku ne dégg sa bopp coow li jeex xuloo du am danaa leen laaj dund gi ma leen mayoon comme cadeau ak ni mu seere ak bu ngeen xamoon li ma daj ci dund jële ko ci sama dund bopp waaw dund waaw ci sama dund googu ci laa dundal lu dund ñu ne ngeen sàggane ko foye ko bu mu jeex ngeen foye seen dund ba mu jeex waaw leen ma ci dara man seen borom waaw dafee nag nit ku ñuul surtout senegale dafa dafa dafa ñëw lan lañ mën a lay mën a wax defee yenent yi jàkkaarloog seen xeet ñu bëgg tuumaal yonent yi naa ñunkat dañu xamul woon ah ñunkat dañu déggul woon ñun jotuñu woon sa ndaw yàlla ni seen yonent du ci ñii laa la yónni woon mu ni waaw du nangam ak nangam la len waxon nga wax la nga wax len ko ñu def ko nangam ak nangam nanu ko bàyyi mu ni waaw mu ni ko ndax wax nga mu ni ko waxna ciow li bëgg bare yàlla tek image yi فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين خيت تخاو خيت بو بنا يوننت تخاو coow du bare ndax fa la naqussanna alayhim bi ilm wa ma kunna gaibin yàlla nee na man munuma wuute fu ne maa nga fa munuma wuute kon werante bi du sore ndax lu ci nekk maa koy àtte mu teg ca nag ni wal wasnu yowma isinil xàqu bu fa kenn ñëw taxaw sama kanam naan ma may doomu yonent sàngam maay doomu sëriñ sàngam maay doomu buur sàngam maa nekkoon nangam ci àddina والوزن إذن الحق لي ما تك سما كنام من يلا موماي اتيك يين تمو دي بالانس بي فمن سقلت موازينه فاولئك هم المفلحون كسيو سيمباخ سي رفت رفت أبو بوا yàlla ne texe nga moo lay atte keroog loolu mooy doon sa adresse mooy doon sa tur mooy doon sa lépp ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون say bàkkaar say ñaawteef say tilim tilim ëpp poids nee bu ñu bu ñu doon seet ku ku ku perte ku doon def commerce perte nee nañu la xool yow yoway aji perte ji ah xasiru anfusahum seen dund yëpp dañ ko perte amuñu ci benn bénéfice bima kaanu bi ayatina yadlimoon won lu ne won naa leen ko preuve bu ne jox naa leen ko waaye ñu lànk mais la ca yàlla teg loolu mu war a tiital nit ku ne la ni nit yaa goree ni nit yaa goree di ku wax wax bi yàlla mi ñu bind moo ko wax tagg du rafet tànk jógewul ci yàlla mais xas du metti tànk jógewul ci yàlla wax le Mawlaana Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu waxoon ni ajjana wis la safara wis la wis la ki ñëw ci butik bi jënd kilo ceeb ñu peeseel le kilo ba mu tollool boroom tibbaat ca ceeb ba dolli ca ma ngay sàmmoonteeg àqu balance ndax bañ fekk na am na défaut mu gàddu sa àq mu tibbaat ci ceeb bi dolli ci te bokkul ci li mu peese mun daf la wis ñu ni cheikh alxaaji malik si radiallahu anhu nu àjjana nekk wis mu ni yàlla taxawal la yowmal qiyamati ci kanamu mbindeef yëpp mu tagg la wax sa mbaax wax say qualité yëpp waaw teg ca ni la gërëm naa la man sa boroom nee na teg ca ni yóbbu leen ko àjjana mu noppalu ji ndax dafa sonn yóbbu leen ma diw àjjana mu noppalu ji Maodo nee na àjjana jooju wés la nee na mbégte yàlla ci yow ak taggu yàlla moo dàq àjjana wa tabaarakallahu ahsanul xaaliq mu ni waaye yàlla taxawal la taxawal jaam yëpp xas la ba nga gën tuuti tuuti wax say ñaawteef yi nga def li nga ko faye noppi ni la jëppi naa la boo ko yëgig boo ko yëgul walla yadu billah nee na mu teg ci ni yóbbu leen ko safara Maodo ne safara sa wis la waye merum yàlla mo gëna metti safara motax tag tagg bu jógewul ci yàlla rek des neexul radiyallahu anhum wa radu anhu ndeysaan waaw yuhibbuhum wa yuhibbunahu leen am na ñoo xam maa gërëmal sama bopp ñu wëlbatiku ñoom ñi ma sunu boroom yow waroonu gërëm ñun ñoo la war a gërëm ndax li ñu jëfe ba nga gërëm nu yaa nu ko dimbalee waaw tabaarakallah waaw mu teg ci ni yuhibbuhum wa yuhibbunahu xam nga li yéeme mooy ki néew doole néew kattan amul bu soppee yàlla ñu dafa yaakaar li ci loxo yàlla moo nekk moo tax waaye yàlla mi yaakaarul kenn soxlaalul kenn bu la soppee mbaaxama ca yegg fa tabaarakallah moo tax baatu yuhibbuhum moo gën a yéeme wa yuhibbunahu radiyallahu anhum ji moo gën a yéeme wa radu anhu koo war a sant war a gërëm mu wëlbatiku sant la gërëm la mbaaxama ni toll ko war a sopp ndax boo ko soppul alku te lii tax nga sopp ko newul ci yow ci loxom la nekk mu dimbalee la ko ba nga sopp ko mu wëlbati ko sopp la mbaa xamani toll waaye li yàlla teg ci aaye ba wala qad makkannaakum fi l ard wa jaalna lakum fiha macaayish qalilan ma tashkuruun qalilan ma tashkuruun lu ne lay amul waaw laata ma leen di bind di leen yóbbu ci kaw suuf lépp luy teraanga luy tax ngeen tal ma man yàlla waajal naa leen ko bàyyi naa ko fa lépp luy tax ngeen tal ma lépp luy tax ngeen tal jiital naa ko fa pour ngeen tal ma waaye ngeen topp ngër-ngëru àdduna topp telli tellu àdduna waaw ah, ba talatu leen ma waaw ah, ma tashkuruun waaw ah. hmm. ma tashkuruun tax nit mu kallaf muy nax boppam moo fi nekk waaw mu kallaf muy nax boppam moo fi nekk waaye yàlla mu pare na ku ne xam nga li xew mag nag bu toogee di nax boppam nañ ko seetaan yaakaar ni ëllëg dangay ngay ñëw rek tappale fexe tappale tappale tappale ba rëcc ci hmm. yàlla da ngay nax sa bopp ku yaakaar ni da tappale ba rëcc ci yàlla da nax sa bopp ahsanul xaaliqin yàlla noppi na démb waaw ah, te damay wax ni ba yeboo rek ñu nangu ndax yàlla sunu boroom jekku nanu ba noppi te dootul jekkee di yàlla jekku nañu ba pare jekku nañu ba noppi mu waxee ni naa ko وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى سبحان الله يلا نسوف نغوك تلالين بندي تلالين جندي ما تربي ملين بندي ما دفر سين مام تسوف لجوغي ومنها وفيها نعيدكم ci suuf laa leen génne moo leen di wannaat ci suuf laa leen di delloowaat waaw mu wannaat leen waaw wa minha nuxrijukum taaratan uxra waaw dana ñëw mu laaj ma génnewaat leen nag lu ma yomb la man yàlla seen borom ba mu ko waxee ba nëgg ba mu ko waxee ba nëgg suuf a ngi wan gisaguma ku ko résister bu amone ku am kàttanu résister be ba dee du ko jël kenn lay doon ci kaw suuf muy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te li ko yàlla wax leer innaka mayitun wa innahu mayitun waaw summa innakum yowma alqiyamati inda rabbikum taxtasimoon man de kérok bima yàlla yobbo madinatul munawwara bama tim raw doom bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ji suuf si suuf si suuf saa ngi nii ci kawam suuf sa du or du xaalis du lenn suuf la suuf géej gi moo ko gën a set gën ko weex gën ko rafet mu tiim yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci laa di ko yóbbu takk sa bagage wal sa mburaake te waaj te xam ni kii li yóbbu kii du fi bàyyi keneen تبارك الله أحسن الخالقين آه. وينك بيسان يا رسول الله يا رسول الله دندم بيرتون يا رسول الله ولدت في مكة المكرمة وأنت خير مولود فيها وفي غيرها من بقاع الأرض ودفنت في مدينتك المنورة وأنت خير مدفون فيها وفي غيرها من عواصم العالم كان مسول دق لولو مولانا سيد شيخ أحمد تيجانسي المكتوم رضي الله عنهم وكوكا وخان نكولت في خير بلد ودفنت في خير بلد وبينهما خير ما للنبوة والرسالة من أثر تبارك الله آه، وبينهما من أسباب العز والكرامة ما جعل الإنسان يحيا في الأرض وذكره في السماء ثم يعود الى السماء ولم يفارق قلبه حنايا الارض حنايا هذه الارض التي عبد فيها خير من يعبد نيكو يا رسول الله ارسلت ولم ترسل الا رحمه للعالمين وبعثت ولم تبعث لأمة دون أمة وأوتيت بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبجماعة لا تفرق بين أحد من رسل الله عز وجل ككون جاهدت وكافحت وحاربت في سبيل الله وتحملت فيها الضر والاذى وصبرت فيها على البلاء واللاوى تبارك الله الى اخره دنم بيرتون ولدت في خير بلد يعني غاني ادنا سي جدك من مكه نغني اللولو يوننت بموكو جوخ مكه كون سنيخي مكه مو فك may ngeen ji dëkk dëkk musul jur dëkk dootul jur ku mel ni ki ma jur man màkka tax ngëneelu màkka sallallahu alayhi wa sallam wadu finta fi xayri بلد waaw su neexee al madinatul munawwara mu fëgg dënnam ni may xayru ni mag juddu gi nga ma ëppalee waaye nag des gi waaw ah, ndeysaan ah, maa ko uuf man Medine ah, ci sama suuf lañu ko denc te ñëpp maase nañu ni buqaa boobu ñu ko denc moom sallallahu alayhi wa mooy suuf ci gën a tedd ci suufu àdduna bi kon màkk tiitaroo na gane adduna gi muy ngëneel ba faw kenn du ko ci dab Medine tiitaroo ngëneelu gàddaay dëkk si fa génn àdduna ñu denc ko fa muy ngëneel loo xam ni kenn dootu ko amati ndeysaan mu ni diggante boobu nag wa baynahuma xayruma lin nubuwati war risalati min asar kenn mësul gis loolu diggante fi mu ganee àdduna muy màkk ak fi mu génne àdduna muy Médine ci ngay xame ni dundam sallallahu alayhi wa sallam yàlla barkeel na ko mooy li gën ci ak nubuwa waaw ñu doon tànn jiwu ba ci gën rafet gën ca baax gën ca sell gën ca jekk ci diggante boobu sallallahu alayhi wa fi la ko ji waaw ndeysaan waaw buntu asamaan di ubbeeku Jabrail alayhi salaam di ñëw waaw boo xam ni mooy sangu téere yi jëm ci ko xam ni mooy sangu yenent yi di sangu lu yàlla bind jëm ci ñaari dëkk yoo xam ni ñooy sangu dëkk yi jëm ci xeet woo xëy ni xayru ummatin uxrijat linnaas mboolem luy tax nit di dund ci kaw suuf defar boppam ba xaritoog yàlla ca kaw sallallahu alayhi def na ko ci diggante boobu mboolem loo xam ni bu ko nit dimbali ko forger ci personnalité am malaaka yi sukk seen kanamu boroom di ñaan yàlla ni ko sarax ñu diw mi nga defal ko double nationalité muy ñëw fii léeg-léeg ñuy wéttalanteeg moom. moo tax Serigne Cheikh ne bi loolu la defal fekk ñoo xam ni. fekk ñoo xam ni ngi ren di xar di jël butit yi di wékk ci garab yi ak xeer yi naan leen yéenay sunu yàlla sallallahu alayhi wa sallam jëlee leen foofu ci diir bu néew raxas seen xol raxas seen ruux nàmpal leen leeru yàlla tungoom leen yéegee leen ñuy dajeek malaaka yi ci kaw di buuxanteeg ñoom naan leen camarade dundam pertul دندم بيرتو صلى الله عليه وسلم تبارك الله احسن الخالقين ها دندم بيرتول تبارك الله احسن الخالقين تبارك الله احسن الخالقين dundam pertul sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag su ko defee nag dañu wax ni ala qadri al hadaf takunu suratu al intilaq daw daw wala li ngeen di wax fëx ah waaw kenn ku ne sa xel ñu ngi koy natt ca na sa soxla toll waaw ku ne say xel ñu ngi koy natt ca na sa soxla toll waaye yàlla subhaanahu wa taala mi nu bind jël dund def ko muy kado mu bëgg ñu profiter ci balaa dund gi di jeex waaw ca kaadaru sàkku wërsëg lu mu la wax famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur famshu la wax jaabante leen ci sàkku lu ngeen dunde teraanga jaabante leen tey ngeen dem Pikine marché ba ba liggéey ngeen dem caaro yi topp luuma yi jaabante leen rek bu yàggee ngeen dajeek seen garabu wërsëg fa nu ko jëmbat waaw waaw xëy di wuti wërsëg waaxoom ñu ngi koy natt ca wërsëg boo ko tax a jóg moo tax yàlla nee na famshu متغاتني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا فسعوا إلى ذكر الله نعم. القصد والاهتمام نعم. وني نك بونغين دي جاي نك الله اكبر الله اكبر دي لن وني واجال لن وقت الجمعه بي فسعوا waaw ah, jubal leen jubal leen direct fasaaw ila dikrillah leneen bu mu leen jaral ngeen jàdd seen yoon fasaaw waaw ah, dox leen jubal direct ila dikrillah waaw hmm? fa ngeen di bàkke ji yàlla subhaanahu wa taala ca jumaa ja waaw ah, fàtte leen commerce bi fàtte leen lépp saa yi ki koy def mooy koo xam ni xelam xolam ruuxam lépp mu ngi ko bokk jox ko yàlla subhaanahu wa taala fàtte ne bénéfice commerce bi fàtte ne lépp fasaw ila dikrillah nga gis bi muy wax àjjana ak na mu mel ak la mu ñu ca prépareel سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سارعوا لوح وخل جكنت لين وهي روانت لين وخل جكنت لين وهي روانت لين بس نغا روانت اي اي شارت لنكو وتل لمال تيني داف اتليتيزم bu defee faux départ bokkuta waaw na yooyu def ñu génnee la bokkatuloo saariu ila maxfiratin fan nga jëm ak jana ak jana boo fa jëmee du yoon wula neex jaar déedéet dañ ko wutal règle góor góorgóorlu leen def leen yitte taxaw leen temm ci lii tax ngeen dugg al jana ngeen def ci seen yitte waaw te ngeen rawante ci nag rawante leen ci waaw hmm, rawante leen ci diw dafa daan naafile junniy rakk pour dem ci yàlla waaw neel du ëpp jom dinaa naafile lu ko ëpp diw mbaax sàngam yiw sàngam moo ko tax am yàlla neel du ma ëpp jom dinaa ko gën a baax saariu waaye xoolal bi muy woote jëme ci boppam waxul famshu waxul fasacaw waxul saaricu fa firruu la wax waaw fa firruu ndeysaan waaw waaw daw leen xam nga buñ jëkkee jëkkee jëkkee rek ñu ni daw leen kenn du xool foo teg sa dàll kenn du xool foo teg sa saak kenn du xoolati dara baatu daw leen gi mooy tax fu waay jot mbëkk ah samba bu ñu nee daw leen rek musiba la kenn du talati dara ah, la nee na fa firru ila allah ah, hmm? ah, daw leen gaaw leen làqu ji ci yàlla ca ba ngeen di ami tànk ah ngeen di ami tànk daw leen te gaawal daw bi pour lan pour làqu ji ci yàlla seen borom ca ba ngeen di ami tànk tabarakallahu moo tax li ma leen wax ci waxtaan bi weesu ni malik si radiallahu taala anhu dafa xëy rek wax fala tirim boobu téeréem boobu ñu ni ko téere bi lan mu ni poñe yàlla dama ko poñe dama ah, ko poñe ndeysaan waaw ah, ñu ni ko lu tax ñu ne yàlla am na nitam ñoo xam ni xaritoo ga muy xaritoog ñoom mooy waral bu nu ko poñewul du leen defal dara <laughs> ndeysaan ndax ah, day bëgg ñu poñe ko ah poñe ga mooy wone intimité bi dox seen diggante moom loolu nitu mbedd du ko àtte la Serigne Cheikh waxoon ni xam ku ko bind leetar ni ko sama nijaay nee na ni nga waxee d'accordu ci ni woy wi Maodo neen dama ci poñe yàlla Serigne Cheikh ni ko ah Maodo maftuh alayhi la ku yàlla ubbi la ku xam yàlla la ku dégg yàlla boromam la mu ne ko sa te te yow sa nijaay ferul ijji <laughs> tabaarakallaahu ku ferul ijji du diingat maftuh alayhi waaw yàlla am na ñoo xam ni bu ñu ko poñewul day toog di leen seetaan rek tabaarakallaahu ah tardeel tardeel seen lépp xam nga lu mu ca nam ñu poñe ko ñu poñe ko pour mu wane xaritoo gi dox seen diggante ñoom ndax xarit bu ne sañ nga poñe sa xarit waaw ah, te loolu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na ko ca xaswatu badrin al mu xamee waajtaay bi yéefar yu waaj mbooloo mënu àndal ak gënu àndal mu xool al fuqara al muminuun moom sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom benn poignée boo xam bi trois ak lu ma xamul ñi la di mille ak lu tegal ndeysaan mu fanaan ca naafile ya rakkaaya allahu akbar ja talal loxo yi di ñaan yàlla di ñaan di insister di ñaan ba kaala gi wadd ndeysaan ah sayidna radiallahu anhu ñoo jël kaala gi delloo ko ndeysaan yëpp taxaw ah ni ko wóor nañu ne yàlla rus na la li ko ñaan dana la ko may ah mu xëy rek moom sallallahu alayhi wa sallam ci dégg gi mu dégg yàlla wacc fële ñaan nga texte ba ah. kenn wax ak yàlla ni ko yàlla yow lay waxal ni ko ngëb bii fi des tey ci kaw suuf ñii ànd ak man topp sama gannaaw ñoom nga fi dese ci kaw suuf boo seetaanee ba say noon faagaagal leen man Muhammad maa la wax ni la kenn dootu la jaamu ci kaw suuf <laughs> dal di cay pare waaw dafa poñe yàlla que ni ñii nga fi am ñii ñu néew ñii nga fi am waaw boo seetaanee nag ba ñu alag leen rey leen yaa xam kenn dootu la fi jaamu waaw al di ca pare waaw waaw naa bu yàlla doon xàqataay dana xàqataay ca kaw waaw yaa sama xarit nag pañe na ma nekk lay ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ah sallallahu alayhi wa waaw lu ko neex neex na yàlla fa tabaarakallah ah lu ko neex rek neex na yàlla fa tabaarakallah ah fa tabaarakallah sabul xaaliqin yal na yàlla duggal ci garantie waaw ndeysaan waaw ah, mu xëy rek ah, yooyu yàlla ni ko tey ma wan la ni nga toll ci man contingent wu malaaka yi tàmbale <laughs> la ilaha illa allah ah ni jibril ay ca caserne yi bu doyul rek ma dolli man yàlla dinaa won yeneen bi ni mu toll ci man dinaa woon ñi yeneen bi jaral ñoom it nu ñu toll ci man ni malaaka yi ay ci xam ngeen malaaka xajul ci nit waaye fadri boo fawqal anaaq lay jàngal malaaka yi xeex ndax ñoom xamuñu loolu ndeysaan fadribu fawqa al anaq ndodd yi ngadd leen ngadd leen malaaka muy ngadd nit ah waaw tibbee toll noonu ci yàlla sayyidina jibril alayhi salaam waaw ndeysaan jàpp leen fudd seen ndigg ba yàlla tabaarakallaahu waaw yàlla tàccu ca kaw hmm? tabaarakallah daf ko poñe waaw tax nag ma wax leen ni lii tax jaam ak gi ci am sañ-sañu war a mën a poñe yàlla soxla ba amu ci lenn loo xam ni boppamay tax waaye yàllaay tax ki nga xam ni benn yitte la am ci dundam kado bi ko yàlla jox mi dund benn yitte la ci am mooy bala dund gi jeex mu mel fi ni yàlla bëgg mu mel ko mu mel fi ni yàlla bëgg mu mel ko pour sagale ko yàlla boroomam kooku sañ na poñe yàlla waaw tax mu xëy rek waaw ñu ko fala budda min shakwa ila allahi kurbati waaw fama liya gayra allahi jabiru kasrati waaw way woo xam ni amul gadal amul dara hmm? nekku fa nan أمين تذكر جيران نكو فنانك أبدا بروق تحت جنح ظلامي آه. نيسان نكو فنانك ألا يا دعد ويحك نبئيني نو فنان الحمد لله ذي التيسير يا الله الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ييب فك كشي دا خير فلا بد ah tey nag tey la ah, jot na nag waaw wala budda min shakwa ila kurbati tey nag ma jàmbat tey ma jàmbat tey ma tawat yàlla waaw ah, ah, ndax li ma dal moom rek moo ma ci mën a dimbali ah li ma dal moom rek moom ci mën a dimbali waaw hmm. ah. ndax dund ah, dund jaam du ñàkk rëq-rëq du ñàkk fakkas talu ndax yàlla rëkk a mët ah, ku mët ku tol ni yàlla nga bëgg ko defal lu mët yombul tax mët mooy cëram ñun mëte mooy sunu cër waaye ànd ak sunu mëte di nag lenn rek mooy déranger iblis lenn moo koy déranger mooy nga nangul yàlla sa mëte di ba waxtu wu nekk rek nga raam nga raam nga raam foo jëm nga ne ci yàlla laa jëm seytaane fekk la fa diri la ba sànni la ca gannaaw océan yi nga xëm ximmaliku raamati ñu ni foo jëm nga ne ci yàlla loolu la seytaane mënul supporter tax nit bu nangoo mëte dem rek jaaxal seytaane waaye daal man Malick fa maa liya gayra allahi jaabiru kasrati waaw samay damm-damm samay rëq-rëq amul kenn ku ko mën a jàng ku dul yàlla sama borom waaw tax rek wa qaraya baabal xayri yaa rabbi lam yufit wa qaraya baabal xayri yaa rabbi lam yufit لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي <laughs> لسان يلا ترد دوما تي فك تبنت بوما فك بدول سبنت دما فاي تردل سما بوب واي كفا نيك ماك موما يام بنديف لني مان لومو ام ام تيرتي يو داي خيف ني دي مار دي مان ni man di jaaxle ni man di dund di dee ni man waaw waaw mm. waaw ku yàlla ku yàlla rek yërëm nañu la bés waaw fekk koo xam ni nag yàgg moom a yem wala moo la ëpp ay problème nga di ko diis sa problème tardel sa bopp la la waaja defoon waaw ñëw fekk nit ku tiim bàmmeel di jooy di yëkkat di yëkkat di yëkkat mu yërëm ko ñëw ni ko pëkk pëkk ni ko looy jooy mu ni ko awma kudul xarit bii mu féete woon ma fu ne ci cadre xaritoo te yàlla jël ko moom lañu suul fii waa ji ñu ko yaa tooñ sa bopp yaa sa bopp yow mu fekk kuy dee ngay xaritoog moom ko teewoon nga xaritoog ki dul dee nga ko naqar wi du la dal waaw waaw xikmatun ah ndeysaan waaw hmm. kon nag koy xaritool na yàlla tax waaw bu yàlla taxe moom bu demee it yàlla du dem waaw waaw wa qaraya baabal xayri yaa rabbi waaw waaw fi ne tanewuñu ma maag ñoo ma yem dañuy jaaxle ni man di dee ni man di ñàkk ni man kon du tardel sama bop ci feug seen bunt te lama soxla newu fa waaw qara ya bab al ghayr ya rabbi lam yufid amul njariñ bama ba ma ko xamee nag lidaka sarafna nahwa babika wijhati ndaysan aw dani ba ma wóoree ni nak kudul yow du fajj soxla yi munul ci lima dal dara dani ko la tayé dem di feug buntu kenn waaw ma jubal direct ci sa bunt ba waaw saraf naa naxwa babika wijhati waaw ah lidaka saraf naa naxwa babika wijhati sarful wijha kanam xar kanam biraan moo gën a tedd ji xar kanam moo gën a tedd ci nit moo tax sujjóot rëy ci yàlla moo tax boo gisee mu ni li daaka saraf naa naxwa baabika wijhati mooy dafa wax yàlla ni ko yoway sama jubluwaay sama xar kanam gu tedd gii amul ku ma jaral ma dékk la ko kudul yow sama julli yaa moom sama koor yaa moom sama azaka sama màkk samay jaamu lépp saraf naa naxwa babika wijhati yaa ko moom waaw waaw yow lay sàkku soxla faj soxla lépp waaw waaw daal dëgmal naa la yow sama borom amatuma soxla ci keneen waaw waaw ndeysaan ngay poñe yàlla nak fa anta karimun fal karimu man iltaja ila babihi yaman ala kulli niqmati fa anta yow yàlla yow buur bi karimun ya yow aji tedd ji ndeysaan fal karimu aji tedd ju mel ni yow ah, man iltaja ila baabihi yi aman ala kulli niqmati waaw ah, aji tedd ju mel ni yow ku gedd ñëpp wuti ko du tas yaakaaram waaw ah, moo tax ku gedd ñëpp wut si la nga làq ko ba mu mucc ci lépp lu mu ragal waaw fa anta karimun foofu la ma Cheikh Alxaaji Malik Sy radiyallaahu anhu ci way wi waaw Karim <laughs> Karim mooy ki yor ndékki ñëpp yor añ ñëpp yor reeru ñëpp yor dund ñëpp wéru ñëpp yor léppi ñëpp te kenn yorul daraam waaw kenn yorul daraam moo yor léppi ñëpp te boole na ñàkk a nangul ak ñàkk nangulul teral leen ci teraangam boobale ah, boole ñu ko nangul di wéy ci ndigalam jox leen jox sax ñi ko nangulul lu ëpp li mu jox ñi ko nangul waaw waaw ah, ca tabaarakallaahu yont yàlla Suleymaan قال عفريت من الجن آه، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا من مقامك آه، وإني عليه لقوي أمين آه، بمو بغي دفل سيربريز رينو شبا مي بلقيس بكو دفل سيربريز أيكم يأتيني بعرشها <laughs> qabla an yaatuuni muslimin départ na di ñëw ci Souleymane Souleymane ne ñi mu toogal ku mooy dimbali surprise bi ma ko bëgg defal mooy mu indil ma euh, trône bi bu ñëwee fekk ko fi muy surprise am jinne ju jóg fëgg dënnam ko maa la koy indil yaa ngi fii toog di atte balaa ngay pare bala ngay jéxal ci liggéey bi ngay def man mën naa la ko indil yéen ci yàlla Suleymaan ni ah boobu dafa yeex boobu dafa yeex rek am nit am nit nit bay jinne la bi nit la am nit ku yëkkati loxom wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuk yonent yàlla Suleymaan ni jinna ji boobu dafa yeex nit ko yëkkati loxom ni ko xefal barakallah mam Cheikh lay ziara ni ko xefa xippi rek ma indil la ko yonent yàlla Suleymaan xep xippi rek fekk ko mu tew ci wetam falamma ra'aahu mustaqirran inda qaala haada min fadli rabbi li yabluwani a ashkur am akfur ñu ne ah lii day teraanga yàlla la lii day ci mbaaxam la ma ko defal waaye du daraja nattu la du cër nattu la daf ma ko nattoo a ah, ashkur am akfur ndax dama koy delloo jëf ji sante ko ko walla dama koy delloo sama bopp bàkkoo ka Ah, moo tax may wax ni ñaan mu nangu kenn du ko bàkkoo kenn du ko tiitaroo waaw ah, ndax dangaa ñaan li nga ñaan moomoo ko boo ko moomoon doo ko ñaan waaw ah, ñaan mu nangu kenn du ko bàkkoo dañ koy sant yàlla waaw te boo tiitaroo ci kenn ko ñaanal mu nangu yeneen téeméeri ngi taxaw ñaan nga ba toqita nanguwul waaw tax delloo ci yàlla moom yonent yàlla Suleymaan nag mu ni wa man chakara fa innama yashkuru li nafsi ku gore ku gore ba jël la la yàlla terale ci mbaaxam nga delloo ko yàlla sante ko ko bañ ca gis sa bopp mu ne sa bopp nga ko defal ndax yàlla ne bu ma la mayee benn nga sant ma ful ma dolli kon sa bopp nga ko defal waaw baatu wa man kafara nag fa inna rabbi ganiyun karim boobu mooma ci yitteel fa anta karimun waaw kafara ku goree di nag ku goree di ah, la yàlla may nga waroon ko ko delloo sante ko ko bañ ca gis sa bopp te xam ni mbaaxama defoo ko defoo ko ndax goree di fàtte yàlla dello ko ci sa bop lankal yàlla sa borom muni fa inna rabbi ghaniyun mu ni sama borom de mo yor lépp ñëpp mo meunal ñëpp te ken meunal ko dara waaw ganiyun ku oomal la ganiyun anil aalamiina ku meuna muñ lepp ñepp la ndax kenn jëriñu ko dara mbaxu kenn yokku ko dara mbonu kenn wañu ko dara waye karim la nak karim ja tax fa anta karimun ah, ki fekk ki la lankal ah, ki la lankal ni dula nangu lu lo metti mo la ko def ba nopi nga jël sa wursak jox ko jël sa dundu defal ko waye fa la tedd nga yam waye waaw fa tedd nga yem waaw tax mu ni ko fa anta karimun waaw fa anta yow yàlla karimun ku tedd nga waaw waaw fal karimu ku tedd ku mel ni yow nag waaw man iltaja ila baabihi yaman ala kulli niqmati waaw ku làqu ci moom rek mucc coupure courant moo waraloon mbir mi tabarakallahu góor gi bi mu jubee toolam gis ku nekk ci biir tool bi di dagg ci euh, euh, dugub ji mu ni doom ji sëggal waaw ñu sëgg ñoom ñaar ba kooka dagg ba yenu sayu dugub bi génn dem ñu door a dugg ci tool bi xale bi ni ko waaw papa lu tax nga fekk sàcc sa biir tool ngay sëgg bañ mu gis la moom muy bañ ku ko gis yow nga koy bañ gis ndeysaan nee na mu ni ko gis nga kii doon dagg dugub ji di ko sàcc yàlla xam na ni moom laa yërëmoon ci kër ba taxoon ma bëggoon ñëw gub ci dugub ji dimbalee ko ko ndax kër ndeysaan waaw waaye gis nga xalim ji foofu rek laa ko mën a ndax baat bu ko mën a wundu ci wàllu yàlla sax mënuma ko génnee waaye jaam bu ne booy def lu ñaaw ba sañoon waxuma la yàlla waxuma la nit fekk la fa waaye yàlla mi la bind sax du lay gis yàlla mi la bind moo la gën a bañ a gis ci lu ñaaw bëgg ko waaw bu dul woon basaram gi nga xam ni dara dara dara rëccu ko du la xool waaye nag mu teg ca yaa sabuuru ndeysaan ndeysaan yaa sabuuru li man jafa ah. ki nga xam ni melokaan bu ñaaw jukko yu ñaaw jëf ju ñaaw tax na ñameetul dëgmal yàlla boroomam ndax daraam rafetul ñamewul jublu ci yàlla ak daraam faf rek won yàlla gannaaw waaw ñameetul jëm ci yàlla ndax na mu mel mu ni yàlla du tax du tax yàlla gedd ko la muy tilim tilim moom jàmm la muy bon bon la muy yées yées du tax yàlla gedd ko mu ni yaa sabuuru li man jafaa du tee yàlla muñal ko ndeysaan di ko xaar di ko karkaral rek ndeysaan pour lan pour mu wàññeeku waat dëkk malaat yàlla boroomam ah, la muy taq-taq la muy tilim tilim bu dëkk malee yàlla rek yàlla fab ko du ko seexlu du ko seexlu ba mukk waaw boo buur bu mel noonu nga am ak moom affaire am ak buur bu am bu mel noonu ah, ci mbaax ci lewat ah? ah, ci mën la muñal waaw ndeysaan waaw Maodo ni ko fa ha ana abdun jitu badiya dillati ndeysaan ñu ko ni ma mel dara baaxu ci waaye comme ci yow laa xaj xajoo ci man kon nag maa ngi nii ah ma sama dara ndax dara munu laa nëbb ni ma melee ngi nii sama ëmba ngoog dara dara baaxul ba di ya dellati sama mëtadi dong laa fi indi mëtadi mëtadi waaw ah, fa ana abdun hmm. xoolal fana faha ana abdu abdu waaw abdu ci la di tagg jaamam ci la di yëkkati nit سبحان الذي أسرى بعبده ها ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ها وقل سبحان الذي أسرى بنبيه وقل سبحان الذي أسرى برسوله ولا بخليله وبعبده jaam baatu jaam ndeysaan jaam ak sangam yeneen ti bay jaam bi yàllaay sang bi ba moo koy yëkkati di koy invité ci kaw waxul ni sama yonent laa invité neewul sama xarit neewul sangu mbindee fii sama jaam laa invité li yeneen yonent bi am yépp ci nangul yàlla nekk jaamam ci la ko yàlla am joxe loolu ci la ko yàlla tagge ah gis nga ma waxoon leen fi diggante jaam bu ko nit ak nit seqee mu ñaaw boo nee diw sama jaam la ah. moo lay bayali tool moo lay doxali soxla bu budul woon moom kon nga torox kon yéen ñaar ku ciy jaamu moroom ma ki nga ni mooy sa jaam te loo baaxle moo la ko defal kon yow yaa koy jariñoo boo munoon boo munoon doo jariñoo sa ñàkku jaam boo munoon doo jëriñoo sa ñàkku jaam ki nga xeeb ba ni sama jaama boo munoon doo jëriñoo ñàkkam ah ci la xas sa bopp yem waaye bu ko yàlla seq ak nit nag mu rafet ndax su boobaa yàlla du jariñoo lenn kenn moom mi sang bi moom moo lay jariñ ah? waaw moo tax yàlla su ne sama jaam rek mu rafet waaw ndax loo am moo la koy defal moo lay dundal moo lay jox nga lekk moo lay jox ngay naan moo lay faj loo am moo la koy defal noonu la sang di mel sang kay day jariñ jaamam waaye bu ko nit waxee rek mu ñaaw waaw ana abdun man daal maa ngi nii sa jaam laa man xaaji ñëw naa fa teel nag baadiya dillati ah ànd ak sama mëtadi ku ni fàng nag فلما بدا لي فلما بدا لي أنه ليس مهرب سوى بابك الحامي مددت يديتي تبارك الله ولف ما يوخني الضوء ca ba ngay ami tànk waaye boo dawee am nga tànk daw nga foo jëm looloo ci des tiit nga am ngay tànk daw nga mais foo jëm waaw <laughs> ah, yow alxaaji malik si radiallahu anhu nee man day man malik fa lamma bada li annahu laysa mahrabun siwa babika alxaami madatu yu dayateen ndeysaan waaw ah, lama badali waaw ah, ba ma wóoree man Malick ni annahu laysa maharabun waaw ah, fu nit di daw di fa làqu di mucce amul siwaa baabikal xaami kuy daw di làqu di feg duggagul ci sa bunt yow yàlla rëccagul li koy dàq bëccëgul di koy dàq ko man nag ba ma dugg ci sa buntoy taxa muj waaw naa ca ba may ami tànk ba ma wóoree nii samay xel samay xel par rapport ak xelu li may dàq moo ma gën a gaaw ma dettu yu day yeti waaw waaw ma xam ni samay xel munu ma rawale ma tàllal sama loxo bu gàtt bii Nah, pour yow nga talal sa loxo bu gudd bobu joté fu ne xëcc ma ma sa bop mo gëna gaaw ndeysaan xolal ma ngay profiter rek ci dundam balay fekk yàlla buggul fakkastalu ci digënté bi bugul bakkan dab ko bugul shaytané dab ko bugul aduna dab ko bugul dara dab ko motax muni xel xelu nay jëm ci yàlla ndax xamna ni mucc ci yàlla rek la nek waye itam xebna sama yi xel talal nas loxo bu gàtt bi ma am talal naa ko yàlla pour mom loxom bobu nga xamni jote na fune mu xëccël ma boppam ndax ma mucc ci limay may dàq ah ndeysaan tabaarakallah ahsanul xaaliqiin ilayka nag bi doofin waftiqaarin wa faaqatin li taxfira lii yaa rabbi min kulli dallati ah ilayka bi doofin waftiqaarin wa faaqatin waaw maa ngoog jëm si ci yow waaye nag bi doofin xalaat buy tax ma mucc pexe muy tax ma mucc awma ci dara néew naa doole ci fànn yépp ci anam yépp awma xalaat bu may musal awma kattan gu may musal awma pexe gu may musal du doofin daal wafti qaabin waaw te soxla naa li may li ma lay ñaan soxla naak te moo di mucc sama aajo la sama yitte la ati xaarin wa waaw ah, ànd ak ñàkk naa lépp nag yoruma dara dara aw ko dara lu may yaakaar awma ma ko ndeysaan ñun ko lu la tax di daw lu la tax di jàmbat lu la tax tàllal loxo yàlla waaw ah, ndeysaan mu ni lenn rek la li taxfira li yaa rabbi min kulli dallati ndeysaan samay njuum-juum samay fakkastalu hmm, samay ñaaw téef laa bëgg rek yow sunu boroom nga jéggal ma ko waaw nga jéggal ma ko ndeysaan waaw rek laa bëgg nga jéggal ma ko waaw بين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي ندق آه، آه، آه، ما زلت واقفا لوخ لسان لسان فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي إذن قال ملا نخان شانتي أنت على محمد صلى الله عليه وسلم آه، لكو يتيلون تي غضبة بدرين ومتخو يالا دونكو دي إنسيستي يتو آه، آه، يالا دين كوي ديف دي فق بنتو يالا مو بني أبينغ إنسيستي دي إنسيستي رك isaan ah waaw waaw bu fëggul nga won ko gannaaw foo jëm ndeysaan bu ubbiwul nga won ko gannaaw foo jëm fëggal rek bu ubbiwul fëggal rek bu yàggee mu xam ni kii fëgg jaaxle na li muy fëgg li tax muy fëgg yitteel na ko waaw qaraatul baaba قرعت الباب حتى كلمتني لما كلمتني كلمتني ndeysaan qaraatul mhm. baba hatta kallamat nii taxaw na ci buntu ba di feug di feug ba sama mbagg yi sama yaram yep yépp ah, jaax wala ma kallamat nii ba ma demee ba ma yakar sama katan jeexna tayina nak naa ah, ni waaye kallamat wax ak ah, man fala fala ubbee bunt ba wax ak man waaye moom daal fa bay na yaday mawlaaya ma diltu waaqifan waaw ndeysaan lii may tawat di ko jàmbat daal ki ci mën dara te moo di yàlla subhaanahu wa taala maa ngi nii taxaw ci kanamam duma ko jaay dara nag ndax aw ma dara waaye daal li ma am daal mooy zalilan ndeysaan ku xeebu laa hakiran waaw xaqiran ku néew doole laa waaw li koy wane mooy mustaxisan li shiddati li ma metti mënuma ko fajal sama bopp kon moom laa koy tawat moom lay sàkku ci moom mu xettali ma waaw gis nga sayid mawlana abdul qadir al jilani radiallahu anhu dafa wax ni ba may dem kër yàlla comme bunt yi bare nañu nee na bunt bu ma ñëw pour jugge fa rek fekk buuxante ba bare fa ñuy rang taxaw ca bunt ba nee na rek ma teggi wiri dem ca baabu zull waaw ca buntu toroxlu laa ilaha illallah buntu toroxlu nee na bi ma ñëwee ci buntu toroxlu dama fekk mu mu libre bit kenn newu fa ndeysaan nee na ma dugg di dem gaañey buuxante ca bunt ya seen ma ni ma foo jaar ma ni leen baabu zull foofu kenn du farang ndeysaan ku won yàlla sag mëtadi sag doye di nangul ko ko mu ubbil la buntu këram ku ko woon sag rëy sa daraja mu tëj sa bunt waaw بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع آه، وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق الشافع ومشفع تبارك الله أسد الخالقين نعم، وتحمني دال زليلا حقيرا مستغيثا لشدتي معني توتي لول خيب لول budul budul budul ndimbalu yalla rek du bax kon nak yalla la tan loxo di ah wax na na mu mel sànn delloo yàlla nag na mu mel moom fa anta ilaahi yaa mu jiibu li ma daa waaw fa anta ilaahi yaa mu jiibu li man daa daawtuka ya sattaaru fastur maibati waaw fa anta yow ndeysaan ilaahi yaay sama borom yaa mujiibu liman daa mi nga xam ni ki jàq bay woote yow rekk yaa ko mën a wuyu xettali ko waaye daawtuka ñaan naa la yaa sëttaaru yow mi yor malaanam sutura fastur ma ay bati maa ngi lay ñaan nga sange ko samay ñaawteef ba du feeñ ah ndeysaan ko yor do moo yor mbalaanum sutura woon wala iyaadu billah àdduna tukki ah waaw suturaal jaam mi ngi yem ci def gi mu def moom yàlla bakkaar amul xet su bakkaar amoon xet man du jege kenn kon buma fi dugg fi technicien yi ñom biran ak ñom samba ni ma gennal studio bi ya ngi nuy ray ak ah? Ah. Ah. xet ah fa le suture yam waaw amul xet sa tar tax sëriñ Si radiyallahu anhu sunu mamu bopp ma sa ne ñew ak sa jakare di am loy jambat Eh, bo waxe ba yàggal ya mu ni yenn nu yàlla suturaal xam nga am na ñoo xani bobu ñaan doyu len li nu bëgg rek moy sëriñ bi bind khatim gu rëy jox len ñu jamb naan sangu jox len ndom yu rëy ñu tak lolu musibe la la ilaha illallah ah nit yalla yi ñom duñu jaar fofu ah Babacar si radiallahu anhu boo insisté nga gën a jàmbat mu ni yal na nu yàlla suturaal xamuloo ni malaanum sutura bu yàlla yaatu na ba ku mu ca sàng loo tëradi tëradi doo ko génn ndeysaan hmm? ah, tax fa anta ilaahi yaa mujibu li man daa daawtuka ya sattaaru يا ربنا نصرف إليك خواطري بجاه نبي للبرية رحمتي جس غدا موم دال يوننت بي دال امو تي ساغو مولانا شيخ الحاج رضي الله عنه انا دغ انا دغ ndax fa anta babullahi ay mri'in ataahu min ghayrika la yadkhulu way fagg buntu yalla yow dem yow dong man na la baña ubil waaye bu àndeeg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag fëgginam yàlla xam na ko buy fëgg yàlla di ubbi bunt bi bu ubbee bunt bi ku topp ci gannaawam yàlla ruuselu ko ndeysaan fa ya rabbana asrif ilayka xawaatiri alxaaji malik mu doy war ah nasaluka alasmata fi alxarakaati walsakanat walkalimat waliradat walxatarat min alshukuki waldunuuni والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب ca seen xisbul baxari xalaat xalaat yàlla dana ci rékki nit refoulé ko refoulé refoulé ko waaw geste rek geste yëngatu geste rek yàlla jàppe ko suul adab refoulé la ci waaw doo xalaat doo def gest bu lay jëppee nga ni teg te kaaral concentration yàlla jëppi la ca ba refoulé la kàddu yàlla dana ci jëppi jaam rëfule ko ah alxataraat waaw ah xalaat xalaat yi waaw ah, xalaat yéene yi tabbi sa xol ah ni sëkki sàkka ah. waaw hmm? Maodo nee na ko fa yaa rabba fa yaa rabba nasrif ilayka xawaatir yi ah, man daal jëlal sama lépp yow yàlla waaw sama dund sama dee sama xalaat sama yëngatu sama dal sama lépp daal xiir ma ci mu doon yow doonal sama lépp rek mooy xalaat ma xalaat ci yow mooy noppi naa noppi ci yow mooy yëg naa la yëg lu mën a doon daal jël ko rek féetale ko ci yow yow rek laa soxla soxlawu ma leneen maa ngi la koy ñaan waaye dimbali ma ci waaye dimbali ma ci bi jaahi nabiyin lil bariyati rahmati ah بجاه النبي رحمة للبرية إيسان لكي جان تي بارك سانغ بوبو مو ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم خمني موي سانغ مندي في خمني موي بتو يرمند بي غي خولي سا جامي فتبارك الله سن الخالق بوكي 88 628 10 95 kata dua puluh delapan, seratus dua puluh bismillah يا الله ربنا 88 628 10 95 توصلنا بخير البرية فيا حي يا خيوم بسم الله بسم الله السلام عليكم waaleykum salaam wa rahmatullah mi ngi sant yàlla alhamdulillah tabarakallah bismillah waaw alhamdulillah tur wi nan la hmm la nah, dimbi mo leeroon tabarakallah ñu ngi jéggulu liñ bi moo leerul bismillah salaamaaleykum aleykum salaam warahmatullah professeur maa lay ziar ñu lay delloo ziara mohamadou jorno sodida mohamadou jorno sodida mohamadou diallo sodida jorno jorno جون محمد جون ما لي زيارة بباخ باخ باخ باخ بال مي دار زيارة مي رفعت لو بباخ باخ وقت عندي الحمد لله بنيان يلا يلا يلا دخل من دقة آمين يا رب العالمين بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله عليه وسلم يلا يلا فيل نسخ الحاج مالك رضي الله عنه ندخ ودك بلي موقتي فلا بد من شكوى دينا خمنا جبل نلف برمم سبحانه وتعالى لكن يوخني سيخي الحاج مالك رضي الله عنه li mu rawee nit ñi li mu rawee góor yàlla yi mu ngi ci nu mu nangoo torox lool boromam subhaanahu wa taala gu mu jébbal boppam yàlla fa la rawee ñëpp barakallah alxaaji Mansour itam daan wax naan nit ki pour nga mën a yegg ci yàlla mooy da jaar ci bunt bi nga xam ne ñu bare duñu fa jaar moo di bunt wàcce sa bopp jébbal sa bopp yàlla dëgg la fala al mansour itam la rawee ñu bari mhm. waaye da koo jëlee ci bàyyam te Seydi Alxaaji Malik Si radiallahu anhu dafa jébbal lépp yàlla wàcce boppam macha allahu waaye jaar ci njabootam mhm. yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp allahumma amiin waaye def ñu dëgg-dëgg njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu radiyallahu taala Mbaye Babacar mi ngi lay nuyu bu baax fii ci Sadida moom itam Mbaye Babacar di ah, moom ak Abbas Diop ndeysaan di ay taalibu Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu radiyallahu anhu yàlla na yàlla sàmm la aar la amiin yàlla boole jazaakumullahu anna xayran jazaakumullahu xayran tabarakallahu jërëjëf mbokk yooyu ñu ngi delloo nuyoo ñëpp di delloo ziyaara ñëpp fa tabarakallahu jazakumullahu anna khairan 88 628 10 95 وجهتي حي يا قيوم يا الله ربنا كريم كريم من التجا لا يعمل على كل نقمة بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمام عبد العزيز الصالح لبيك man la Doudou Lo dëkk Thiel dëkk Sédhiou Faye si wàllu. waaw Doudou Lo ñu ngi ziara. imaam Abdou Aziz. la béy ko. man yéen yéen a war a wax. Ah, alhamdulilah. yéen yéen a war a yéen nit ñi. alhamdulilah. wala fi nekk woon xaw ñu fu mu jot. alhamdulilah. man yàlla moo am na yàlla tey. amiin ñu bokk ko amiin ku dugg léegi wax na wax bu rafet. Hmm. maa ngi koy rafetlu. yal na ko yàlla foofu tamit yal na ko fay fay yiw. amiin yaa rabbal alamin. loolu moom dañ lay baal ak yàlla ajante bi ak Seydi Hadji Malick Sy. radiyallahu anhu. yal na la yàlla defal jàmm. amiin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. amiin tabarakallah yal nañ ko yàlla boole tabarakallah Doudou Ndoye. jazaakumullahu anna xayran. 88 628 10 95. الله ربنا

dama am xaw ma laaj laa koy tuddee xaw ma lan laa koy tuddee parce que ñeme mu ko sax tuddee laaj parce que sañ ma laaj laaj bu mel noonu. dama mm-hmm. commencé dégg ba léegi muy wax ay waare. Mm-hmm. mu ni li Cheikh El Hadj Malick wax ci yonent bi. Mm-hmm. ma ni jàng kon bon dama ni bu ko jàngoon fenn keneen jàng na ko pour wax ko. bu ko liiroon feneen keneen liir na ko pour wax ko. donc en fait je musuma dégg keneen ku ko wax. donc origine connaissance boobu. ça me pose te moo tax ni xaw ma sañu ma ko tuddee laaj parce sañu ma laaj lu mel noonu. mais dama yàgg déglu. Mhm. ñuy wax ci ay xelaas daa bay affaire yu mu bind. Mhm. te musuma dégg beneen nitu yàlla. Mhm. wala beneen borom xam-xam bu bind wala ci wax ci loolu. waaw. ndeysaan. waaw daf ma yéem. <laughs> ndeysaan la. <laughs> daf ma xam nga ku ne dégg di ci waxtaan di ci génneelu dina beet. ku ne ak sa may. waaw waaw ah, yonent yi sax tilka rusul fabal naa baadahum ala baad la yàlla wax ah. nee na bu yëpp ñëpp yemee cër am ñu gedd seen bos ah. te gis nga xam-xam ñett la ilmu dirasat ilmu riwayat ak ilmu ladoni hmm. eh, jàng yi ci bibliothèque yi téere yi bari yi kooku ñëpp mën nañu ko waaye nag di nga jàngandoog nit même texte mu dégg ca biir loo déggul kooku mayu yàlla la ilmul laduni yi nag kaas la yu yàlla yi tànk rek di nàndal ku ko neex su ko defee nag kenn ku ne ak kaas bañ la nàndale na mu toll ci la sa xaal di toll waaw ah, Maodo digganteem ak boroomam digganteem ak yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam digganteem ak sëriñam ca nañ ko nàndale rek ci xaal boobu ca la binde ca la waxe ci la jëfe tabaarakallah sunu xaaliqin waaw ko defee nag xusuusiyaam la jagleem la jaglem la fa tabaarakallaahu ndax li lay wan ni borom jagle la moy mom la fi gis ci xulafaa u tariqati ko xamni ganego aduna ñu bind sa itlaq say ndigal yep def ci enveloppe tek di xaar mom waliyu mursal la de nga waaw émission bi lolu taxu won woon waye waaye tabaarakallah khaliqina am naa tam benn affaire moom bëgg wax bon peut être du sujet sujet bi. Mhm. mais peut être un jour peut être sa waxtaan nga waxtaan ak moom. dama mës a dégg ci benn waare. Mhm. ñu ni nit bu amee ñeent fukki guddi. ci mhm. biiru ndeyam. ci lay yàlla di yónni malaaka mi bind sa destinée. ma ni donc lan mooy relation entre destinée ak jugement parce que bu fekkee yàlla moo yónni malaaka bi bind sa destinée. te ñun ñëpp xam nañ ni ëllëg daañu ñu isap. Mm-hmm. ah nga def sa compte rendu donc lan mooy lien bi entre les deux. ndeysaan dëgg la <laughs> ah. allahu akbar. lu ma yëm laa xar moom tamit. Ah, gis nga yàlla li mu seq ak jaam yi. la mu seq ak jaam yi. loolu la organise ci la dugal malaaka yi ci la dugal yonent yi ci la dugal ñëpp. Ah. dégg nga waaye la nga xam ni nag moomeelu boppam la kenn bokk ca. <laughs> dégg nga. waaw ah, moo tax ah. ahadiyaam kooku kenn bokk ca lu ko neex mu def ah. li ñu bind ci page yi li ñu de ci ordinateur yi kooku ci kaadaru mulk gi nga xam ni moom la seq mbindee fi la yem bu dee ci domaine am la rek moom nag kooku nag moom wa yafalu fii mulkihi ma yasha waaw bu dee fii rek nga koy gis ci suñu àdduna eh, texte yaa ngi fi nga gis hmm. ku def loo xam ni texte yi dañ koy tere ñu condamné ko xam-xam moo ko condamné ak tëralin loi mais mais pourquoi le chef euh, le chef d'État am pouvoir ou xëy ñëw defal ko grâce jéggal ko <laughs> et pourtant taxi ñoo ko condamné. waaw du dëgg. ku dafay lëlee moomeelam la. yoonu kenn nekku ca moo tax yàlla li mu seq ak jaam yi la wax ak yonent la mu nekk ca ahadiyaam du yonent du jibril du malaaka du kenn ku ca xam dara du kenn ku ca sañ dara waaw moom moom yi fu boppam yamxu llahu ma yasha wa yusabbit wa indahu ummul kitab waaw ordinateur bu mag bi central bi ci kanamam la nekk ah. lu ko neex mu effacé lu ko neex mu bind ci ah. waaw kooku kenn du ko ca fekk ah. waaw moo tax xam li ñu seq ak moom ak li nga xam ni moom la seq ak boppam lu bare fa la ñuy daanoo moo tax Maodo daan wax naan la taxtarru bi dawahiri nusuus waaw mu ni mu ni rigueur yi texte yi àndal bu leen ci trompé wu yàlla texte tënku ko moo tënk texte yi <laughs> tabarakallah vraiment jërëjëf kontaan nañ trop trop trop première chaque fois dama doon jëm woote mhm. mais j'ai du mal à entrer dans cette parce que daf may fekk en situation comme ça ni sama oto mhm. mais ça me fait énormément plaisir tout le temps damay jëm dugg mu tëma mhm. jërëjëf tabarakallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jazakumullahu xayran 88 628 10 95 Now. bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu sama sëriñ Abdul Aziz Fall la kooku man la Mansour Deme eh sama imaam <laughs> eh, eh, kii génn léegi mhm. eh, fa tabaarakallaahu dafa bàkk njaag mhm. wolof yi di wax duma wolof nag waaye li wolof yi di bàkk bàkk bàkk na njaag ah. mooy loolu ndax xam nga Ceerno Hamidou Yero Bane mhm. tànneef la tànneef nag moo mun a tànn <laughs> lu mu tànn ay monument yu toll ni yow ak eh, suma sëñ imam Moussa ndeysaan du caaxaan de ci tànneef moo mun a tànn walillahi alhamdu tabarakallahu ay monument la indi teg foofu donc kii nag daa bàkk njaag walillahi alhamdu wallahi loolu benn werante nekkuñ ba mbàkkee njaag nag dégg na la la nga xam ko mbàkkee njaag la nga mën a dégg tabarakallah tabarakallah firi wi ni nga ko firi yi nii <laughs> du firi yu ni como de fa tabarakallah fa lillahi alhamdu nandal nga ko ca nandal yeggan yi nandi ñi eh, fa lillahi alhamdu fa tabarakallahu rek nañ kontaan nañ jërëjëf dem li nga doon wax léegi sëñ Babacar si li mu doon wax ci suutura ah. ñu saïd nouru taal radiyallahu taala radiyallahu taala anhu ñaan leneen lu yàlla suureen rek wallahi yàlla suureen wallahi moom yàlla suureen rek wallahi dafa xam li xew ñaanal yëpp yàlla suureen parce que yàlla bu la suturaalee rek jeex na wallahi wallahi wallahi dëgg la sutura ci li lépp xaj tuuti ci sutura rek musibaam yàlla suureen dëgg la dëgg la dëgg la ku ko xeeb ku ne xamoo li nga xeeb kenn du ko xeeb wallahi wallahi daawtuka ya sattaaru fastur ma aybati wallahi wallahi wallahi wallahi sal tabarakallah dem dem amin jërëjëf jërëjëf dem jërëjëf jërëjëf dem tabarakallah 88 628 10 95 muy allahu rabbana وصلنا رسول الله بغير البرية بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Abdul Aziz soxna si da nga dend ak rajo. waaw moo moo tax wàññi na. waaw kay wàññi wala nga fay. tabaarakallah wala ma fay. bu la ci neex rek tabaarakallah. loo ci bëgg rek laay def. <laughs> waaw waxal maa ngi lay dégg léegi. loo bëgg rek laay def. waxal maa ngi lay dégg. maa ngi ziar. ñu ngi lay delloo ziar sama sama mudir mais bul wax sama tur. <laughs> non bul wax sama tur ñaan naa la ko tey. incha allah incha allah ci barke Malick bul ko wax. radiyallahu anhu incha allah. waaw maa ngi nuyu Thierno Yoroban sama ah, mudir ci Màkka. ndeysaan ndeysaan dëgg la bu baax boobu bu laabiir boobu macha allah. ndeysaan dëgg la. waaw bu may déglu maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal jàmm. waaw ah, tabarakallah. Ah, yàlla boole jàmm Abdoul Aziz la bay ko. Pala bu debi benen affaire la hmm, hmm. billahi wallahi man duma man dara bi ko dan deglu ci ben radio ñu def ko générique bi hmm, mais ni nga koy defé ni ma ngi ni tëdd ci sa duma man dara bu de dal man wax deug yalla janguma alxuraan nonu pour xam me ya koy firi ni ah day bu ma manon bu ma dee ñu jàngal ma ko laa budda bala ñu maa suul day siru ma ko sax damay jema leral rek ndeysaan ah <laughs> ma ko mënoon daal bu ma teewoon tey ñu jàngal ma ko. Mm-hmm. ah bala ñu maa dugg sama bàmmeel daal dinaa kontaan mais nag xam naa loolu mënta nekk ci kàttan yàlla ak mbaax. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. di kontaan ci émission bi. tabaarakallaahu. di la féliciter encore une fois de plus. Mm-hmm. man du ma la zappe yow. ci seen rajo Safina ba sama rajo la parce que. Mm-hmm. firi dafa am yoon macha allah daal du ma guddal. mais hmm. daal man kontaan naa ci ni ngay firee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yal na yàlla may la jàmm. amiin boole ak borom rajo bi ak madame Gange. amiin bi nga xam mas naa ko jot. amiin ak ñoom Birane macha allah wallaay ndeysaan wallaay wallaay kontaan ci yow maa ngi nii di déglu kon bëgguma mën a poliser kii bi ligne bi. à bientôt jërëjëf. jërëjëf jërëjëf amiin amiin amiin wa yaakum jërëjëf jërëjëf macha allah tabaarakallah 88 628 10 95 bisimilah. asalaamaaleykum Alaaji. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. ah man nag émission bi tey malheureusement yu bari rëcc nañ ma ci parce que dama amoon gan. Mhm. donc euh, xanaa ci révision bi rek laay xame li xew. incha allah di la di rek xam naa ne sa la di xam kan la. Mhm. waaw dila dila di rek dila encourager te dila ñaanal yàlla ci barke ya Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk faaleen gi daal ndeysaan dëgg la <laughs> dëgg la comme sant jaay daal jaay nga ko ndeysaan ndeysaan waa kay faal ñu yenn jaay jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla fay leen yiw yàlla fay leen yiw yàlla yàlla fay leen yow barakallah jërë ngeen jëf 88 628 10 95 مشارب هذه الحضرتين بطفقنا تبارك الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبيك سيد علي اوكي سيد علي من لي ديالو زيارة الحمد لله من لي ديالو زيارة زيارة بنتي زيارة احمد يعني يعني Allah yàlla yeesal yéen mën nga leen jégal leen allahumma amin dañ leen di ñaanal sëriñ Mouhamadou Moustapha yàlla ko yàlla bàyyi allahumma amin da ca kanam a kanam a kanam lépp lu ñaan yàlla na mottali allahumma amin sëriñ Abdoulaye Aziz Al Amine yàlla na ko yàlla bàyyi allahumma amin Sénégal yàlla na ko yàlla def jàmm amin ya rabbal alamin ñuy dugg muy élection yàlla na jaar ci jàmm amin yàlla ci jàmm amin ya rabbal ku ne am na ngay am Sénégal continue allahumma amin yàlla na ci jàmm jëkk mujj amiin yàlla balaale. sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu mboolem xalifa nag yal na yàlla aar ñëpp. allahumma amiin. sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbal aalamiin. amiin yàlla boole ñu ko def. nga doon tuwaay bi léegi nag kontaan nañ ci lool. alhamdulilah. loolu rek lañ doon xaar ci yow. tabaarakallah. xam-xam moom xam-xam rek koy doon. dëgg la. te laaj laaj la bu fóot la nag bu naqaree doon ci nag. ndax mbir moo dëgg. wallaahi alhamdu. géej la rek daa fàtte la rek. Mm-hmm. tax ku ciy wax it na fekk nga xam ca rek mhm. maa ngi mos wax ne dem na ci benn dëkk mhm. fekk ko fi firi miin ya mhm. mu ne wuti yàpp ak baaxante <laughs> parce que kon nañ jàng fa la ñuy wax <laughs> wallaay ndeysaan surtout jamono bi ñu toll wax lu bëri na te njàngul ko rek nit ñi nañu góorgóorlu ci xam am doog a dem ci rajo yi waaye firo ij la baaw baa Babacar bi daan wax maam Cheikh ne premier ko ni góor gi daan na wax ne bés ni jamono ngi ñëw mm-hmm. ñii waat nit ñi duñ fa ij dëgg la jamono jooju nag dañ koy yëg wax loo xam ne da ngay waaru ci yàlla lii fu mu ko teg dëgg la dëgg la ndax ñàkk jàng sa bëggoo not dëgg la te ku xamul nottuwul nag mm-hmm. te kenn xamalu ko ne no xamoo mm-hmm. ah buy wax dina doy waar dëgg la moo tax jamono day na waar dëgg la dëgg la waaye ñu def la ñu maam Cheikh waxoon rek ku ku téeméeri docteur tigiréndoo nga dee dëgg la. waaw kon nañu wut benn docteur bu ci génn. dëgg la dëgg la. te daal ñu daan wax ni ko euh, euh, mu kàllaf. Mhm. di jàgganti ko mm, dëgg la dëgg la nañ fexe bay jàgganti ko ci ñor ak jàgganti. wallaay dëgg la. nit daal day am wéeruwaay. Mm, dëgg la dëgg la ku am wéeruwaay daal kenn du la bon. da nga daal dëgg la. waaw ku amul wéeruwaay. dëgg la. tabaarakallah sëriñ Aliou Guèye ba tabaarakallah 88 628 10 95 bismillah. imaam. la bayk. Abdoul Aziz maa dama la bëggoon dama fàtte woon ne ñaanal sama papa Al Amin mhm. yàlla na fi yàgg ci wér si Malick ak njaboot gi yëpp allahumma moom sama papa yi la bi ma nekk service semence mës na ñëw ak euh, sama papa alaaji Ibou Sakho mhm, radiyallahu anhu naa dafay xat mais dina ko ziyaare ji benn bis ci waawan incha allah di ñaanal sama papa wëllëre boo xam ne yàllaa ñu boole ba ni muy gaañu muy al ci sama papa Cheikh Ahmed Tidiane mhm. si almaktoom yal na yàlla yokk leeram si maali fa mu tëdd amiin yaa rabbal alamin waaw moom dama ko bëgg te yàlla tax ci sama xol kooku yàllaa ko def mm, dëgg la dëgg la waaw sama papa Mansour laa njëkk gënoon a miin macha allah mhm. fu mu ma gis xàmmee na mais moom moom dama koo bëgg te yàlla tax ndeysaan dëgg la yàlla moo def loolu yal na yàlla yokk leeram si dama gis ci euh, ci koor gi mhm. conférence yoo xam ne imaam mhm. Abdel Aziz dama bëgg nga leeral ni ci tuuti du du ci émission bi mais yebbi ñu ci yebbi ak di gërëmaate loolu laa la bëgg samp mhm. laaj bu ma samp la loolu pour lan la loolu laa la bëggoon a laaj fa laay daanele asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu xam naa benn auditeur rek 88 628 10 95 tabarakallah نعم الوكيل الله أو المسيرة as as as wadda waaw ñu ziar bu baax ñu delloo ziar wadda man soo ba léegi maa ngi woote waaye def ah dëgg la de mu demee nag xam naa li waa ji doon waxtaan. ma ne xam naa mooy lan ma waxoon rek yàlla tooñu kenn de alalam lay jël. waaw waaw wallaahi lan boobu lañ koy dugal. Mhm. waaw yàlla tooñu ba ba ba ñu fi génne àddina ba nga ñëw loolu nga jëkk a wax yàlla tooñu kenn alalam rek ngay jël. wallaay dëgg la dëgg la mu nekk wax ji ma marqué sax. Mhm. waaw mooy li nga xam ne na beneen boo xam ne yàlla rek moo fa dëgg la dëgg la dëgg yàlla ñu dëgg yàlla wallaay waat di nga ko bokk. déglu bi ñu xam nañ ko wallaay waat. jërëjëf tabaarakallah jërëjëf am na après dinañ jox ko incha allah incha allahu taala incha ah fa tabaarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp ñu sant ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp yiw ni ñu amoon ci waxtu jeex na seen mbokkum taalibe alxaaji abdul aziz fall moo toogoon ci daara ji ñu yàlla defal mucc ak muccule wér ak wérle dund ak dundule اللهم ارحم عبادك وبلادك وصلى الله على الرسول وعلى ال الرسول والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته